damuwa assalamu alaikum mahaza mahaza kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen sant di leen masawu ci xaar bu yàgg bi di tàmbalee sama waxtaan gi tey ci di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ñi nga xamante fi ñu jaar yépp ñoom ñooñu tertu tax coalition Diomaye Président am caravane boo xam ne li ko doon topp ci mbooloo toppul beneen caravane xaar ngeen ñu guddi xaaji guddi sax laay wax xaar ngeen ñu tamit bëccëg ndar kam laay wax xaar ngeen ñu sax ci fajar heure boo xamante ne heure u xagg fekk na leen ngeen di ñu xaar dafa am loo xam ne de la coalition Jomai, président monoko am parce que nous sommes les seuls à ne pas savoir que c'était impossible et c'est pour ça que nous avons été les seuls à le faire Comme à Gorgi, à tangorgi, xaar ngeen ñu bando ko fekk leen fa xaar ngeen ñu ba xaddu fekk leen fa kon amuñu seen fay ci seen taxaway ci campagne électorale bi ak lu muy gatt gatt yépp seen détermination mo tax yegguñu handicap bi nga xamante ne bi ko gaay doon door ñun ñi ngi woon ci kaso ba ma bëggoon rek jéegalu tuugal ñi nga xamante ne ci ay département la ñu nekk wala ñu nekk ci ay communes yoo xam ne jotuñu fa woon mën a jaar malgré seen mobilisation ak malgré yéene gu ñu amoon pour ñoom ñu fekkee ko ma di leen wax ne rek maa ngi dogg ne incha allah ñoom ñooy nekk priorité ci man en tant président de la république pour samay première visite. les alliés de la coalition Diomaye Président Fognane les hommes et les femmes de valeur qui nous accompagnent dans la course à la présidentielle de 2024 nous sommes c'est des alliés qui nous sont mûrs que par le projet qu'on porte Nous beaucoup de nous, nous projet Yekati Sénégal def que Sénégal nekk un projet un pays souverain